daf leen ni ci yeneen bi Abdul Aziz neena mooy doome yeneen bi seeni loxo yi ca kaw si daf leen ni ci yeneen bi mooy doome yeneen bi yawmal jazaa'i war laa jox sa wàll ci Aziz doomi Alé Ndiaye ji taalibe seriñ Babacar Sy waaye taalibe Serigne Aziz Al Amine bi at mu def ko defati na ko at mu def ko tey saabu bu dikkee yokku ndax boo xoolee lim bi indi woon daaw limu ren bi man na ko ñaar Aziz li ma naan jëfal yàlla wóor Aziz li ma naan def ju baax a wóor Aziz li ma naan jëfal yàlla wóor defoon na ko daaw def ko daaw jeg defaat na ko ren at mu ne da koy gën a man doomi Alé amati nga ndam nii rek la lu baax boo ci nekkee bul ci bul ragal ca kaw ca kanam rek ba nga ko def ba tey da ngaa yokk macha allah ànd ko ay magam masata ak baay ak ay bokkam ngeen gis nag yi nii képp koo xam ne rek kilifa nga nekk ci Tiwaawan li sa wàll ci bis bi dana la ko jox muy wàllu nag ak ceeb ak teewluñ ak la cay dem nan ko ñaanal gudd fan maa kon nag yaa ngi ni ñu war dem kër njëkki kër al amin ndax ku ne xam ne diggante Aziz ak al amin mooy léppam ndax dafa di ma faadal tàmbali bi ci al amin laay njëkkee ndax mooy sama turando mooy sama sëriñ mooy sama lépp fa laay njëkkee fa lañ jëm nii nag yaa ngi nii cey assis cey assis amati na ndam nii lañ leen ko toppale ngeen kam am ci Dakar Buzz waaye sunu baay El Hadj Alé ngeen gis mu ne ci 4-4 bi nii li ma naan baax am na solo waaye am njaboot gu baax am na solo ndax soo amee njaboot gu baax loo rafet lu ñu ñagal la ko sunu baay Alé Ndiaye ngeen séen ci 4-4 bi amati na ndam lépp moom la. moo ko tàmbali woon tey ba koy tàmbali fekkoon na ay wéjum tàmbali ko Aziz daa ñëw rek tegu ci raay bi ndax Aziz lii mu def maama ma ko tàmbali woon baayam di ko def ba moom mu koy def lépp suñu baay bii la El Hadj yalla Ndiaye yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàlla guddal fanam taaliba Serigne Babacar Sy bi taaliba Cheikh El Hadj Malick bi lii rek ndax li ba naan doon sa baay doon sa baay ko gën Aziz nag doon na baayam waaye doon na baayam ndax bàyyil ba bàyyi génn àdduna mu door def la mu daan def. yàlla yàlla guddal fanu baayam te bay ko fi ndax li fa am teg tànkam rek fi la teg tànkam doomi Aly Ndiaye ji Aly Ndiaye guddal fan loo fi gën a yàgg muy a baax ndax yar nga si jabatu jom yar leen ci nàmpate leen ci bëgg talibi taarixa cheikh yar leen ci social ku leen xam-xam ne lii mooy diine te it lii mooy réew mi ni boo ko tane da koy dimbali te waawoon gépp génn nañ ngir ànd ak Aziz Ndiaye ci li muy def muy ndam ndamal l'islam waaye di ndamal képp kuy taaliba cheikh Aziz yàlla yàlla guddal fanam nag yaa ngi nii maa ñu leen koy toppal la daama lana dalalun wa idlalun wa kunna qaa'inina walawla u la daama lana dalalun wa idlalun wa kunna qaa'inina loolu indi lii Maodo saakam Usmaan al-Kariim al-Murtada seen maam jooju di Maodo mooy Cheikhul di qad jaa'ana mawɗo no indilli mo no indil nooral huda waaw Malick Malick maa ngi nii ak ak koo xam ne day kenn ci kër gi di kenn ci assis koo xam ne li ma naan ku fekk bu taxaw ci lii doo doo ko loo fi wut muy jàmbaar nag di kenn ci kër gi jori ñu naa la fay naa la tur bi naka la Assane Seck Assane Seck tey lan la ngeen mën wax ci diggante Assis Diaye waaw euh, alhamdulilahi rabil alamina maa ngi julli ci yonent bi di sant yàlla sama borom bu baax di gërëm si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sama wasila di wax ni sama diggante ak Abdoul Aziz diggante rakk ak mag la ju yàgg joo xam ne mbi daanaka mi ngi bëgg a def fukki at muy borom xol bu rëy nag di borom yéena ju rëy nag nit ku mu àndal bëgg nañu di la xool ca kanam yàlla def ni mu ni ni mu mel ci ay bokkam noonu la mel ni mu mel ci ay xaritam noonu la mel ci ay bokkam lii jëf ju rëy la jëf la joo xam ne eh, xolo koy def ndax dëkk ci kër bokk ca kër bu sagee muy sa sag bu suuxee mu du sab sac nga ne damaa bëgg a bokk ci sac ba sa turandoo ñëpp ko manifester daat ni ah man kat kontaan naa ci te nii mu ko defee fii ni la ko defee ci këru diine yëpp bi ñuy bëgg a màggal Touba man maa yóbbu nag yu bëree bëri Touba kon moom innamal moom leen iqam mi ngi koy dund boole na ay ay àndam encourage am ay murita ci ëpp loolu ak mbaax moo ko wane ma nga gis sama taxawaay ma ñëw ngir fu mu ma teg ak lu ma def ak lu ma seq moom seq koog jabootam gépp ak ay rakkam bàyyi aale Mbabacar euh, magam euh, Masata noonu daal la demee di ko ñaan yàlla suñu borom nag aar ko euh, ba képp koo xam ne bëgg ngaa mel ni moom ci dëkk bi rek yàlla mi nga xam ne dara tawu ko yàlla na def def la nga xool xool bi mu amee ba nga roy ko ci loola. waaye Assane mu mel ne Aziz amati na ndam moog ay bokkam ay xaritam parce que li yombul ndax lee naa nee naa joxe yomb na waaye yombul ndax euh, loo xam ne at bu dem def ko dama def leen amati na ndam de. am na ndam ndax xam nga li gën a ci joxe mooy joxe pare bañ koo naw ab dëgg day xam ne yàlla mi ko jox. da jox pour mu joxaat ko jaam ni lii mu def def ko buntu këram jaam ñi ñëw fi képp a tax mu def ko waaye def ko ngir puukare def ko ngir àdduna bu ko doon def def na ko bu yàgg yàgg yàgg loo def ngir àdduna doo ko defaat defe naa lii bu nekkul juróomi juróomeel bi édition nekk na fukkeel bi ndax maamam daf ko daan def ki jur baayam ma jigéen ba suñ Babacar si nañ ko waaye alima góor kon moom bu ñëwee jël relève bi teg ci jomam nag ak ngor ak fulla loolu pas-pas moo koy maye loola tax mu jëf toll ci téeméer nag ak juróom fukk jël lu ca ëpp ni ab sëriñam la koy jox ndax sëriñ Abdoul Aziz Al Amine ni mu ko def euh, ñu féetale ko ba pare am contentement contentement ci ak mbégte di wane waxtu wu ne fierté ci moom loolaa may def ji moo tax mu du ma ko yóbbu fenn fii ci ëttam la indi ko jox ab taawam. loolu tey ba ma doon xaymaal tey lim ci lu mu toll. moom. moom day wax ni nag ginnaaw defu ko ngir wane ko bu kenn euh, xaymal ko dara moom li tax mu li li tax mu def ko te yàlla la jógee jëm ci yonentam jaar ci ab ab sëriñam muy ab taalibe mu yëkkati aw ñaqam ak alalam nam toll mu jël ko def ko nag ci yàlla rek tax nee na xamul soxnum toll munu koo xayma ndax amulu ko ab waxtu ni rek yàlla sama borom moo ko indi jaarale ko ci euh, ci ci jaam ni mu wàcc ba ci moom defar ko ci jaam ñi. dafa mel ni jëfal yàlla gisoo ba dina déparé ba léegi ñi jëfal yàlla foo dem day yokk doy na mu am solo mu am pay waaw yaa baax kontaan naa nag yaa ñàkk di gërëm sama xarit bi Malick yow nag fas naa yow kóllëre jërëjëf Malaw ñu gis la ci nag yi nga yor ni ci liggéey bi euh, boobaa léegi kañ nga fi nekk ci liggéey bi ak nan nga saytoo liggéey bi waaw ñu ngi sant yàlla jur ci bu tedd bi sant suñu ñaari waajur Abdou Aziz ba ñu ànd moom xale bu ndaw la am na léegi 27 ans Aziz mu àndal teral na la jàppale na la suturaal nañu jàppale nañu fonk nañu def nañu mag respecté nañu lii nag ñun ñoo ànd moom ba mu nekk tout tànk mosuñoo bàyyi moo ki bokkam ak ki waajuram may gërëm seen baay ma jigéen seen baay alaaji aale Ndiaye doomi Alema jigéen ndax lii seen maama ko doon def alaaji yar njabootam ci diine ak lislaam njabootam gépp Aziz nekk koo xam ne bi yemul kenn ci àddina ci ngor ci fulla ci fayda ñun daal ñu ngi sant yàlla bu baax di am mbégte Malick Malo jërëjëf gi kilifa yaa ngi jarta lim jarta lim te boo gisee ñu koy defee nii ñu koy defee nii mu nekke ci wàllu gàmmu sëñ Abdou Aziz moo ñu ko sant woon nii ni boo amatee dee leen ko defee nii ànd leen ak ñi ngeen war a àndal bàyyi aale na jiitu xale yi nañ ci top Abdou Aziz na na yëg ni fa ma tëdd ak fu ma nekk am naa fierté ci moom te bis bu nekk historiquement ma fàttali la suñu ndaje buleel ma nga xam ni korog sëñ Abdoul Aziz Al Amin la mu wax sëñ Abdoul la mu wax Abdoul Aziz Ndiaye te sa kanam la ko wax yow ak njaboot gépp nga seede ko fekk ko kon tey nag laa xarwa bi jamonoy dox ba ñu fekk la fi yow si Malick Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha tey tabaarakallahu ndeg gi jam maam jam bàyyi su jamul doom doom moo teggi yoon bi ñu ñëw léegi Assane Seck ak Baye Ndiaye dañ ma wax daw yaram ni ma ñun li ñu neex mooy bu ñu eggee bay joxe teraanga ji Serigne Moustapha lépp lu mu jàpp daf koy bàyyi Serigne Moustapha képp ku fa mën a ñëw dana yëg ni moo war a teeru gan xadara bépp waaye dana bàyyi lépp ñëw toog jàkkaarloog Baye Aziz def ko Baye Baye Ale def ko Baye def ko wéyjur ni ko ñu ñëpp nañ baa bokk taasu ci barke xadara bi nga xam ni amuñu lu dul moom Abdoul Aziz Ndiaye ak i magam Hadj Masata ak ñi ñu àndal ñëpp ñun ñëpp xadara bi lañ yaakaar ñun ñëpp sa maam la ñu bëgg ñun ñëpp amuñu lu ëpp gàmmu Tiwaawan bi ñuy ñëw Masata Ndiaye mi daa wax loo xam ne nii ku ne mën nga cee jàng gars yi dañ ko laaj journaliste yi Sonko ni ko Masata looy wax mu ni wax amul ndax am na jëf yoo xam ni tabaarakallaa mooy firi wax waaye am na ci loo xam ni buñ ci paree tey édition 2019 ci atum ren mbii ci gàmmu Tiwaawan bii ci mawlidu nabi ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu xel ak suñu xol day jàkk day jàpp jàkk li nga xam ne mooy édition 2020 yàlla nañ ko fekkee te bu ne yàlla dàq ren ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam damay jox bàyyi àll bu amee lu mu ciy sànni mu sànni ko bu ñu paree tabaarakallaahu sëriñ bi tontu ñu defal ñaan incha allah ba beneen yoon bàyyi sëriñ bi mu dem recevoir yéen gan ndax ñëpp a ngi koy. mbaa am nga am naa jàmm kay. Eh, li ma naan Aziz amati na ndam waaye daan am ndam waaye amati na ndam bu tollee fii yow mi nga xam. man mii ma am ndam man mi ko jur. mu fekk ma ci ñaar ñeen fukki at ak juróom ma di ko def. Mm-hmm. ba mu jëlee ko ci sama loxo di ko def. Mm-hmm. man ma it ma jëlee ko ci sama loxo bàyyi Alima jigéen mm-hmm. man maa am ndam bu gàmm tolloo fii tey jii sa doom Aziz débale ko lu toll nii ànd ko ay bokkam ak yow ban yëg-yëg nga am sunu papa sant yàlla yonent bi rek loolu ci def loolu ñaan na ko yàlla sant yàlla yonent bi loolu ci def rek mu ngi sant nañ yàlla mhm. gërëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm sëriñ Babacar Sy ak ak ak ak njabootam mhm. ak al amin ak njabootam ñëpp ak ku dikk Tiwaawan tey taalibe seex mhm. bu mu mën a doon ak foo mu sosoo gërëm nañ la sant nañ la yàlla nga ko yàgg a fekke te nu yàgg koo def jërëjëf Malick ñu ngi ñaanal sunu wayjur wi yàlla guddal fanam te bàyyi ko fi mu yàgg def lu mel nii. auzu billahi mina seytaani rajim man sama xol daa fees ba mënumaa wax. xool nag waa kay Baye Alé nee na tabaarakallaahu xolam moo fees ba amul lu mu wax. waaye nag il faut ma sànni tuuti ay kàddu. waaye nee na mënul ñàkk mu sànni ay tuuti kàddu. kàddu yi daal li ci ëpp mooy. nee na kàddu yi daal li ci ëpp mooy. ñun xam nañu ni. nee na ñun xam nañ ni. fi ñu teg suñu tànk. fi ñu teg suñu tànk. naxuñu nu. naxuñu nu. ndax 1922. nee na historiquement 1922. ci la àllaay ci la sëñ Babacar jël xilaafa gi. nee na ci la Cheikh Seydou Aboubacar si jël xilaafa gi. 1923. nee na 1923. ci la sama baay ñëw ci sëñ alaaj ah, ci nee na way juram maam Alima jigéen ci la ñëw ci sëñ Babacar. booba ak léegi. nee na boobu ak léegi. amul benn arrière. amul benn arrière. bu ñu fi am. bu ñu fi am. boo xam ni. boo xam ni. liñ doon def. liñ doon def. yëg nañ ci ni. yëg nañ ci ni. dellu na gannaaw. dellu na gannaaw. kon. nee na kon. ñoom naxuñu ñu. nee na ñi ñu àndal seq ñoom naxuñu ñu. xaw ma ku ñu nax nag. nee na xaw ma ku ñu nax. waaye ñun bokkuñu ci. waaye tabaarakallahu ñun bokkuñu ci. kon nag. nee na kon nag. lii ñuy def. nee na lii ñuy def. suñuy waajur daan ko def. suñu ay jur ak suñuy maam daan ko def. di ko def ak suñuy sëriñ yu mag. di ko def suñuy kilifa yu mag. nu ba ñooñu ñu dem bàyyi ñu. ba ñooñu war ñu ginnaaw dem te demuñu. ñu ànd ak seen i njaboot. nee ñu ànd ak seen i njaboot. di ko def. di ko def. ak samay njaboot. ak seen njaboot. loolu sant nan ci yàlla bu baax nee na loolu sant nañ ci yàlla bu baax. lépp ci nar a def ci wax. nee na lépp luñ ci nar a def ci wax. nañ ko def ñaan. nee na ko soppi def ko ñaan. nañ ko soppi ñaan. nee nañ ko soppi def ko ñaan. ñu góorgóorlu. nee na ñu góorgóorlu. ñoo ngi dale ci xalifa général bi. nee na tabaarakallaahu ñi ngi dale ca Cheikh Seyd Aboubacar Mansour xalifa général de Tidiane. teg ci Pape Malick si. teg ci Serigne Pape Malick si nga xam mooy porte parole. njabootu Seydil Hadji Malick teg ci bépp ku sant si teg ci bépp ku sant si te bokk ci njabootu maam Cheikh Hadji Malick noo ngi lay ziara nee na ngi lay ziara di bëggee ak yow di la bëggee ak ñi nga xam ni. ak ñi nga xam ni. ñoo fi nekk. ñoo fi nekk. di leen jàppale. di leen jàppale. fu ñu taxaw ñu taxaw fa. nee na fu ñu taxaw ñu taxaw fa. fu ñu toll ñu toll fa. ñu toll ñu toll fa. ñooñoo tam. nee na ñooñee tam. mënuñu leen am seen pay. nee na mënuñoo am seen pay. bu nu am bu nu sañoon day. nee na bu ñu sañoon day. ñëpp dinañu am ci. ñëpp dinañu am ci. xéewal gi. teraanga yi ak xéewal yi. waaye nag. waaye nag. yàlla xam na ni. nee na yàlla xam na ni. li ñuy def. li ñuy def. bu ñu sañoon. bu ñu sañoon. dina ëpp lii ñaar yoon. nee na tabaarakallaahu lañ defoon daaw def ko ren bu ñu sañoon. day ëpp lii fuuf. lii ñu indi fii. nee na tey li ñu indi ci 2019. indi ko fii ci ëtt bi. indi ko fii ci ëtt bii. bàyyi nañ ci kër Aziz. bàyyi nañ ci kër Aziz. lu ëpp loolu. lu ëpp loolu tabaarakallaahu ba lu toll noonu. wala lu toll noonu. looloo tam. te looloo itam. ci kër dëkk bi. ci biir dëkk bi. lañ koy dugal. ak ganu yeneen bi ak ganu Seydil Hadji ñoom lañ koy jëgal. boo demee sama buntu kër. nee na boo demee buntu këram. ca ci fee ci sama dëkk nee na buntu këram ca ndut ca ndut bàyyi naa fa loo xam ni nee na bàyyi àll nee na bàyyi na fa loo xam ni xaw naa doy ni xaw naa doy ni li ñu indi fii ci xadara bii te lépp ci dëkk bi te lépp it tabaarakallaahu ci ganu yent bi la jëm bu fekkoon maanaam jël nit dafa baax dafa dagan nee na bu fekkoon ni tabaarakallaahu mën naa joxe neneen wala yeneen xeeti teraanga kon daañu def lu ëpp lii kon nee na daañu def lu ëpp lii yonent bi yonent bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luñ ko terale lépp luñu ko terale xeeb nañu ko. xeeb nañu ko. Alaaji Malick. nee na Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu. loo ñu ko terale. lu ñu ko terale. xeeb nañu ko xeeb nañu ko. Serigne Babacar Sy. Serigne Babacar Sy. lu ñu ko terale. radiyallahu anhu lu ñu ko terale. xeeb nañu ko xeeb nañu ko. Abdou Aziz. nee na Abdoul Aziz Al Amin Serigne Abdoul Aziz Al Amin lu ñu ko terale lu ñu ko terale xeeb nañu ko xeeb nañu ko ki fi nekk xalifa bi nee na xalifa bi Cheikh Seyd Aboubacar Mansour lu ñu ko terale lu ñu ko defal ci teraanga xeeb nañu ko wallahi xeeb nañu ko njaboot gi fi nekk nee na njaboot gi fi nekk lu ñu leen terale lu ñu leen terale xeeb nañu ko xeeb ko kon daal nee na kon daal ñoo ngi sant yàlla ñi ngi sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax alhamdulillahi rabbil alamin di wax alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala allahumma salli ala sayyidina muhammadin yow la ñuy déglu nga indi sa kaddu waaye Baye Alé mi ngi wax ni na nga ñaanal njabootam yëpp tàmbale ko ci masata jaar ci seen i rak ba ci sa papa ji nga xam ni mooy turandoo sëñ Abdoul Aziz Al Amin di Abdoul Aziz Alé Ndiaye tabarakallahu moo ki rakam ak i mbokkam Aziz Aziz mu ne amoon laaj waaw taxaw jot seen. waaw salaamaaleykum. waaw ñu ngi nuyu mbooloo mii fi daje. ne ñu ngi nuyu mbooloo mii fi daje. jiital ci sunu wayjur Baye Alxaaji Ali Ndiaye. jiital ci sunu wayjur Baye Alxaaji Ali Ndiaye. ak njabootam gu tedd gi. ak njabootam gu tedd gi. Masata. Masata. Serigne Abdoul Aziz. Serigne ak ay rakkam. ak ay rakkam. mbooleem am di jàmm yi. mbooleem am di jàmm yi. ak wëllëre ak wëllëre yi. nuyoo bu ñuy melal. nuyoo bu ñuy melal. di ko jéem a melal. di ko jéem a melal. ci sunu yéeney kilifa. ci sunu yéeney kilifa. muy Serigne Babacar Sy. muy Serigne Babacar Sy. taawu Serigne Abdoul Aziz. taawu Serigne Abdoul ak. sunu baay. ak sunu baay. Serigne Papa Malick si mi yilif penc mi ak sunu kilifa. ak sunu kilifa. Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour Seydi Aboubacar si Mouhamadul Mansour. di xalif général. di xalif général. ci yéenay njabootu maam El Hadj maam El ndax jëfkat. ndax su yeesee. bu yeesee. cant dafay yees. cant dafay yees. te am na façon yi jëf yoo xamante ni am na yoo xamante ni bu ko nit ki jëfee bu ko nit ki jëfee loo gàttañ lu gàttañ lu loo gàttan lu gàttan lu sañ koo wax jërëjëf sañ koo wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydi Aboubacar daan na wax ni Seydi Aboubacar daan na wax ni baat bu gàtt la. bu gàtt la. waaye ña jëf rek ñoo koy dégg jëf rek ñoo koy dégg. ku jëful doo ko dégg. ku jëful doo ko dégg. lii nag. lii nag. dafa feeñal. dafa feeñal. jëf ji. jëf ji. te mooy yéene. te mooy yéene. maam. maam. sunu maam. sunu maam. maam Alima jigéen. maam Alima jigéen. meññi góor gu tedd gi. meññi góor gu tedd gi. ak njaboot gii nga xamante ni. njaboot gii nga xamante ni. tey. tey ñooy roytal ñooy roytalu ci seen ñaari jëf ya ci seen ñaari jëf ya mag ñi nettali nañ mag ñi nettali nañ moo njëkk a dagaan ay nag moo njëkk a dagaan ay nag doxe dëkkam doxe dëkkam ca gannaaw Kébémer. ca gannaaw Kébémer. aw meewaan. aw meewaan. ñëw fekk ci Seydi Aboubacar. ñëw fekk ci Seydi Aboubacar. wëllëreem. wëllëreem. soppeem. soppeem. mbokkam. mbokkam. xaritam. xaritam. sëriñam. sëriñam. pour jébbal ko yéenay. pour jébbal ko yéenay. barkeelu. barkeelu. ci guddi yonent guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. loolaay cosaanu jëf ji. loolaay cosaanu jëf ji. dañul. dañul. di am di am ci taxawaayu góor gu tedd gi taxawaayu góor gu tedd gi Baye Alxaaji Ali Baye Alxaaji Ale dañul dañul di am di am ba njaboot gi tey ba njaboot gi tey ñëw ñëw di ko wan ni ko di wan ni ko ñu ngi ci sa suuf ñu ngi ci sa suuf di xeeñcu di xeeñcu ñu nit ñu nit seeni jeexi seeni jeexital sëriñ Abdoul Aziz sëriñ Abdoul Aziz ak magam ju tedd ji ak magam ju tedd ji ak seeni rak ak seeni rak ñoom baay ak wëllëre yi ñoom baay ak wëllëre yi ak njaboot gi Baye Ali njaboote yëpp. ak njaboot gi Baye Ali njaboote yëpp. at mu jot. at mu jot ñu indi lii ñu andi dëggale ko pour dëggale ko seen cofeel seen cofeel ak seen pas ak seen pas ak bokk gu ñu bokk ci fii bokk ci fii ak wëllëre ak wëllëre rawatina rawatina ka ñu ko séqaloon ka ñu ko séqaloon te tey nun ñu jëmmal ko te tey nun ñu jëmmal ko muy Cheikh Abdoul Aziz si Al Amin naa ko def nag naa ko def nag te bu ko kenn wax bu ko kenn wax kenn amul maqaamam kenn amul maqaamam te dafa am jëf yoo xamante ni am jëf yoo xamante ni. bu ko nit ki xasee jëf. bu ko nit ki xasee jëf. loo gàttañ lu gàttañ. loo gàttañ lu war nga koo wane. war nga koo wane. fa mu toll ci yow fa mu toll ci yow. ndax jëfu xol la ndax jëfu xol la. te bu fekkoon ni. fekkoon ni. jëf ji dafa ñëw rek. jëf ji dafa ñëw rek. lambu njaboot alaaji Malick lambu njabootu alaaji Malick. ñi mu jur ci geño mu jur ci geño kon doon nañu wax ni. kon dan nañu wax ni. seen mbir dong la. seen mbir dong la. waaye jëf ji. waaye jëf ji. Tiwaawoon Tiwaawoon Sénégal Sénégal mbokki taalibe yi taalibe yi xadaraat xadaraat yi nga xamante ni xamante ni tey tey ay banqaas lañ ay banqaas lañu aju ci bi jëf ji jëf ji dana yegg ca ñoom dana yegg ca ñoom démb la ñuy waxante maak moom mii ñuy waxante maak moom mi wàllu wëjëm Kaolack wàllu wëjëm Kaolack ca kër alhaaji Abdoul Hamid Kane ca kër alhaaji Abdoul Hamid Kane ak kër alhaaji Ibrahima Niass ak kër alhaaji Ibrahima Niass pour wan leen ni pour wan leen ñoom ñi ñoom ñi ci biir ci biir cofeel gi ñu am ci ëtt bi gi ñu am ci ëtt bi boolewaale nañ ci boolewaal nañ ci mu matale lool mu lool ba ba xadara bi yëpp xadara bi yëpp xadara tijaniya xadara tijaniya bi kulliyati bi kulliyati ñooy yëg am nañu am nañu ci seen biir seen biir ay kilifa ay kilifa ay njaboot ay njaboot boroomi Pastef boroomi Pastef boroomi pas-pas boroomi pas-pas yu seen itte kawe yu seen itte kawe bi himmatin aw bi xaalin aw bi tarbiyatan xaaza bi seen wayjur jëmbat ci ñoom seen wayjur jëmbat taxawe la ñu leen. wuutu leen fukki nag. ci fukki nag boo demee. boo demee ba mu weesu téeméer. ba weesu téeméer. xam nga ni. xam nga ni boroom. boroom jàmbaar la jàmbaar la. li ñu indi fii. li ñu andi fii. lu ni tolloo nga ca kër ga lu ca kër ga. ngir. ngir waa Tiwaawoon. waa Tiwaawoon. li ñu indi fii. ñu andi fii. lu ni toll. ni toll mu nga ca kër Baye Allé. ngir. ngir moom it. moom ko yéene jox ko yéenee jox. ci biir dëkk bi ci dëkk bi. ak lu ko génn ak lu ko génn. yaakaar naa ni. yaakaar naa ni. loolu kenn du ko noppiwaale. loolu kenn du ko noppiwaale. faw. faw ñu wax ko ñu wax ko jaajëfal leen jaajëfal leen jaajëf jaajëf baat bu gàtt la gàtt la ña jëfa koy dégg koy dégg sëñ Babacar daan wax ni daan wax ni jaajëf jaajëf feeñal jëf la feeñal jëf la te feeñal jëf feeñal jëf yàllaa ko digle yàllaa ko digle ngir ngir ki mënul woon ki mënul woon jàngee ko ja jàngee ko ja loolu la Cheikh Abdoul Aziz bëggee woon loolu la Cheikh Abdoul Aziz bëggee woon bis bi bis bi bu jotee bu jotee ñu fësale ko nii fësale ko nii moom moo santaane lii moom santaane lii. ngir bu njëkk ngir bu njëkk. wan. wan njaboot yi. njaboot yi ni ah. ni ah maa la sopp maa la sopp. maa la sopp dafa am lu koy firndeel. am lu koy firndeel. lii. lii weesuwul du firndey cofeel. di firndey cofeel. diggante. diggante nit. nit ak nitam. ak nitam. diggante. diggante taalibe. taalibe ak sëriñam. sëriñam. diggante. diggante ñaari wëllëre. ñaari wëllëre. way soppe. way soppe yu seq. yu seq. cofeel ak wëllëre ci diine ak tariqa ñëpp xam ni ñëpp xam ni ñii ñii fierté tariqa bi lañu fierté tariqa bi lañu fierté Tiwaawan lañu fierté Tiwaawan lañu te yamuñu ci lii dong yamuñu ci lool lii dong barki démb barki démb yawmul ashura yawmul ashura Abdoul Aziz Abdoul Aziz da koo fekkoon tukki da koo fekkoon tukki li muy nekk nekk ci tukki nekk nekk ci tukki mu ngi bàyyi xel bis bi bàyyi xel bis bi ba keroog ba keroog tant boo xamante ni tant xamante ni ñun. ñun biñ koy luyee daaw. ban koy luyee daaw. fay nañ ci ñaar fukki millions. fay nañ ci ñaar fukki millions. moom la ñu indil. moom la ñu andil. kilifa yi kilifa yi ñëpp. ñëpp sant ci. sant ci ca yamu ja. mu ngi wax ni. mu ngi wax ni su amee mébétam. amee mébétam doo duñ ko jéggaaneeti. dootuñ ko jéggaaneeti. waaw taalibe buy def lu mel nii. buy def lu mel nii nag. defe na kenn du ko kenn du ko xumtoo dañ koy wax ca kaw ni hakaza hakaza fa illa walaala falaala nii la taalibe di feeñale cofeelam feeñale ci sëriñam ci sëriñam nii la taalibe di wane ak bokkam ci pencu tariqa bu dul nii bu dul nii na amul na kon ñu wax leen kon ñu wax leen jazakumullahu xayr jazakumullahu anna xayr yal na yàlla wuutuñu ci yéen yal na yàlla wuutuñu ci yéen wuutu kilifa yi ci yéen kilifa yi leen seen mbir taawul leen seen mbir seen yéeney wayjur ak maam ba sosoon lii maam ba yàlla wàcce ko ci yéen yàlla wàcce ko ci leen seen yoon jubalal leen seen yoon musal leen ci bépp ndox ci bépp ndox te sàmm seen yëngal yëngatu sàmm seen yëngatu. te barkeel te barkeel te ful. may sunu baay bii. may sunu baay bii wér. yàlla defal ko ko. yàlla defal ko ba li mu bëgg a doxal yëpp. mu doxal ko. mu doxal ko ci yoon wi mu ko bëggee. yoon wi mu ko bëggee. yàlla na ko yàlla def. yàlla yàlla def. ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi sant ngi baalu ak ñëpp. ñu ngi ziar ñëpp dafa mënul woon a ñàkk sëñ Pape Malick bu mënoon mooy taxaw fii ma taxaw Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Babacar Sy Mansour bu mënoon mooy taxaw fii ma taxaw mënul Serigne Babacar Abdou bu mënoon mooy taxaw fii waaye seen kóolute ci nun moo indi bu jotee ñu ni nañu taxaw jenkoon te koog ñoom. wan leen mbégte kilifa yi wan leen seen can waaye feeñal fierté Serigne Abdoul Aziz ci turandoom bi ak baayam bi ak seeni rak ci lii nga xamante ni at mu jot ñu defal ko Tiwaawan ngir def ko mu nekk seen jokkuwaay ci yiw wi nga xamante ni moom la ku nekk di dabu ci jëmmi yonent bi te Seydi El Hadji Malick fentoon ko pour yiw wow ñu ànd ko ba keroog ñu di leen fekki leen fekki. yal na nu ko yàlla boole defal. yal na nu ko ñu sant bu baax. ñu sant bu baax. wëllëre yi ñëw. wëllëre yi ñëw. jokk si ci lii. jokk ci lii. wan leen ni. wan leen ni. ñoom ñii ko def. ñoom ko def. def nañ ko naam. def nañ ko naam. waaye xam nañ ni. waaye xam nañ ni. yéenay. yéenay ku nekk ci yéen la. ku nekk ci yéen la. yal na leen yàlla fay yéen it. yal sant itam sant ëttu xibaar yi fi ñëw. xibaar ci 2 TFM. TFM. RTS mi ndey daayira ndey rajo yi ndey rajo yi Dakar Buzz 2STV ak ak mboole asfiya yi mboolem mboolem Dawaïr Sen TV Sen ñoom ñëpp ñoom ñëpp eh, ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal ci nangu gi ngeen nangu gi ngeen nangu ñëw immortaliser immortaliser jëf ji jëf ji wan ko waa réew mi ñaanal ñaanal Sénégal ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw di gàmmu si yàlla indi la ci jàmm yàlla andi la ci jàmm delloo la ci jàmm ci jàmm nga ànd ak jàmm ci yoon wi bay delluwaat sa kër kër delluwaat sa kër yóbbaale fa jàmm yóbbaale fa jàmm yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla def waaye sëriñ Abdoul Aziz sëriñ ñu ngi leen di ñaanal leen ñaanal wan leen wan leen cofeelu Serigne Abdoul Aziz Serigne Abdoul ci jëf bii ci jëf bii Cheikh junj na ko Cheikh junj na ko keroog keroog maak yow maak yow ak euh, Baye ak Baye ak Cheikh mi ak Cheikh mi. ñoo bokk fanaan ñoo bokk fanaan. Serigne Abdoul Aziz nekk ci nekk ci biir. ci suba gi ci suba gi. bi mu duggee. bi mu duggee. bëri na lu ngeen waxante bëri na lu ngeen waxante te la ngeen waxante la ngeen waxante xam nañ ni booba xam nañ ni booba li mu firi li mu firi mooy sëriñ bi da doon tàggoog yow mooy sëriñ bi dadoon doon tàggoog yow gannaaw ba mu la wane gannaaw ba mu la wane mbégteem mbégteem ci lépp loo xamante ni loo xamante ni ndax da daan wax ni ndax da daan wax ni buleel day buleel day ku ma fa fekk ma fa fekk si na nga xam na nga xam ni bég naa bég naa ci fekk si ci ba nga ma fa fekk si da ngaa ñëw fanaan moom da ngaa ñëw fanaan ak moom xëy yendoog xëy yendoog moom wéet ak moom wéet ak moom yamuloo ca yamuloo ca bi nga dikkee bi nga dikkee da nga ne ah da nga ne ah, sëriñ bi dey sëriñ bi day yàgg na fii yàgg na fii xam naa xaalis xam naa xaalis bi mu findi woon jeex na jeex na dugg ci sa ci sa oto loo xamante ni loo xamante ni mënee su ko lim mënee ko lim ñëw jox ko jox ko ko booba te booba sëriñ baa ngi waajal sëriñ baa ngi wàccaayam wàccaayam pour fekki boroomam pour fekki boroomam kon mën naa wax ni kon mën naa wax ni xaalis bi mujjee dugg ci loxoom. xaalis bi mujjee dugg ci loxoom. yow mii. yow mii yaa ko teg ci loxo yaa ko teg ci loxo. ak mbokk mu ñuy wax Makhtar Ndiaye. ak mbokk mu ñuy wax Alxaaji Makhtar Ndiaye. xam naa loola. xam naa loola. yéen a ko dëj. yéen a ko dëj. yal na leen yàlla fay. yal na leen yàlla fay. yàlla gis na sa yàlla gis na sa jëf. ak sa jëfi ak sa jëfi wayjur wii. yal na leen ko yàlla fay yàlla na leen ko yàlla fay. Serigne Abdoul Aziz Serigne Abdoul Aziz. yóbbaale na cant yóbbaale na cant. gumu la sant gumu la sant. yow ak say mbok yow ak say mbokk rawatina wayjur wii yal na yàlla taawu seen mbir taawu seen mbir. zahiran wa baatinan lu ngeen dugg lu ngeen dugg. yal na leen ca yàlla fekk na leen ca yàlla fekk. defal leen ca. defal leen ca. la gën la gën. la ëpp la ca la ngeen ngeen yaakaaroon. ca jëf ja ca jëf ja. jërë ngeen jëf ngeen jëf. jazaakumullah ana xayran. kon nañu tàllal ñu ñaan tàllal leen sëriñ bi ñaan. nañu tënkal rek ci. mu ne. beneen bi ma ci yokk rek. sëriñ bi ne beneen bi mu ci yokk rek. mooy sëriñ Abdoul Aziz. mooy sëriñ Abdoul Aziz. dafa xam yéenay sëriñ Abdou. dafa xam yéenay sëriñ Abdou. ndax. ndax daf daan wax ni. daf daan wax ni. su ma sañoon. bu ma sañoon. bisu yonent bi si yonent bi. du ma ko du ko reyal rek. du ma ko reyal nag kese kese. nag kese kese. bu ma amoon ñey. bu ma amoon ñey. nag bu ëpp ëpp ñay. moom laa koy moom laa koy rayal. mooy nag wi ngeen gis ci digg bi bu rëy ba. bu rëy ba moom la ko defal. moom la ko defal. ci yéene gi mu amoon yéene gi mu amoon. ci. ci bisu yonent bi bisu yonent bi. nag bi mu koy taxawal. nag bi mu koy taxawal. xalifa mii lay yónni. xalifa mii lay yónni. mu wëral ko. mu wëral ko. ba gis. ba gis nag wi gën a cher. ci nag wi cher ci nag ndax ki mu koy reyal. ndax mooy ki gën a cher. mooy ki gën a cher. ci ñi yàlla am ci ñi yàlla am. mu di sallallahu alayhi wa sallam wa sallam. loolu la feeñal ci mébét bi feeñal ci mébét bi. te moo ko yaral boppam te moo ko yaral boppam. ngir rek ngir rek. feeñal feeñal yéene bu sell yéene bu sell bi Cheikh Abdoul Aziz bi Cheikh Abdoul Aziz amoon amoon ci bis bi ci bis bi jërëjëf Ndiaye jërëjëf Ndiaye jazakumullah ana xayran daf leen ni ci yeneen bi Abdul Aziz neena mooy doone yeneen bi seeni loxo yi ca kaw si daf leen ni ci yeneen bi mooy doone yeneen bi yawmal jazaa